maa ngi jiital di nuyoo bi kilifa jotaay bi di sëñ Adama Cissé ibnu Cheikh musa Cissé Ndiamé borom daaru di ko siyaare bu baax di ko di ko dalal ci diwaanu Caaroy di diwan bo xamne ne fi la nekkon yem ak ñep bëgg yalla bëgg sëñ touba di réere ko lool ci mbaxu yalla sama wajur wu góor wo wi do ba dajek Cheikh souleyman ñaan sang bi ñu ngi lay nuyu di la Cheikh souleyman ñaan la xamal ne li lépp yow fi nga ñu fekkoon fi nga ñu indi ko gën fuuf loolu ñépp seere nañ ko te ci zaahir la ak ci baat ba ngay ànd ak ñun de ay ndaw waye nga tagat ñu ci leeru yalla ba tay ku ñu gis bëgg mel ni ñu té lool mo jafé lañ wax naan dawul door ba baatin la lay ce que bàmba yaay ko kon yar go gi nga def ci ñun bañu am ak défaru kon sang bi ñu ngi lay ñaanal nga yag fi lool ti and ak wër té di ñaan tamit ci sa barké ñuy yag di am cofeel ci yow ñu yàgg di la bëgg di defal te di di mën di la defal ndax yaay sunu lépp ndax ki tax a gën ko warutoon a gën du sa morom sa sang caaroy dey indi nga fi leer caaroy andi nga fi dund caaroy indi nga fi kaaraange ndax baatu laa ilaha illallah seen jubaa moo ne wa annaha tud'a bi isnillah fal haj bi sikriya bi laa tanaa'i laa ilaha illallah mooy kaaraange suñu borom dee leen ko tudd te bu leen ko amal àpp waaye caaro yi géej dey xale yu ndaw yi sax foo leen fekk ñu ngi si karantu baatu laa ilaha illallah te kër gii moo tax te yaa ko fi def def na ci ñun gëm Cheikh Moussa bëgg Cheikh Moussa yaakaar Cheikh Moussa te duñ ko bokkaale dara loolu moom def nga ko ci ñun ba mu wér te gëm Cheikh musa bëgg Cheikh Moussa mooy gëm yàlla mooy bëgg yàlla ndax Cheikh musa wootewut lu dul yàlla kon buñ ko xamee yàlla nañ ko xamee ki ne ña góor yàlla ga góor yàlla yu njëkk yow di wooteel laa doon laay wooteel te muy yàlla borom jàmm ñi wooteelu ma képp yàlla képp laay wooteel ku ma jox sa bopp ba mag sa bopp ma yóbbu la ci yàlla ba nga ko ci baatu laa ilaha illallah so suma beneen yoon yoonu xaadimu rasul rek laa diyee salaam kon lii mu def ci ñun li mu yokk ci ñun mooy bëgg Serigne Touba ceeb waaye wàññiwu ci dara Serigne Touba it ku ko bëgg-bëgg yàlla ndax dama ayaati li ayaati laahi moo tax te fa mu tegoon di ko wax ñun yëg nañ ko bu wér te yaa ñu ko yëgal. kon ñaan ñu ngi lay ñaan di la dagaan nga yàgg di ñu tawfiixal ba lii sa yéene mooy wane Cheikh Moussa ba àdduna yëpp gis ko ñun ñu mën ci sax am lu tuuti loo xamante ne def nañ ko ci ndax ñun xam nañ ne sa bëgg-bëgg du lenn lu dul rek ñëpp xam liggéeyu Cheikh Moussa ci àdduna kon ñu ngi lay ñaan nga tawfiixal ñu bu baax a baax baax baax di siyaar ñi fi teew ñépp Cheikh Demba lim na sëñ Balla Akassa sama xarit na sama wëllëre la jamono ji muy ñëw fii di ma seet boobu dugg kër yàlla yàlla yi jafe na waaye mu bëtt loolu yëpp ñëw déglu ma ñu waxtaan ci yàlla mun na nangu ko bu wér ne ma lii ku ko nangu ku ko bañ see mor xurije siise sëñ Tuubaa ko seexal bi na ko te gis naa fi mu ko bind ku ko gëmul man gëm naa ko sëñ bi sëñ Balla ñu ngi lay siyaar bu baax sànq Cheikh Jibi teew na fi it Cheikh Jibi sëy amaana dafa dellu di sant di gërëm bi Binet Diagne ndax bis bi góorgóorlu na ci lool ci ay relation yoo xamante ne am na ko ba tax yàlla tëw féexal bis bi muy koo xam ne suñu kóllëre wax dëgg yàlla kéemaan la kon bi ne ñu ngi lay siyaare bu wér a wér di siyaar waa Caaroy Géej yëpp nag bi ñu xëyee di def xatmul quraan di def wàcce alquran bi imaam teew na fi imaam Moussa Gueye te bi mu teewee ba kaamin bi mag dafa ne su ma xëyoon sax di raam dinaa ñëw ci bis bii ndax mënumaa ñàkk ñëwoon sëñ amaat naayam bi teew na fi Baye Assane Niang ñu ngi koy nuyu di ko siyaare di siyaare président association des habitants de la cité Papa Guèye ndax association des habitants de la cité Papa Guèye gii ñu nekk ñoom it ñëw nañu fi seet si ma indi seen enveloppe maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi siyaare tamit l'amicale des élèves et étudiants de Thiaroye-sur-Mer ñoom it def nañ délégation ñëw fi wane seen yéene ci bis bi di tamit jaajëfal soxna yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci waañ wi caaroy ba mu dëkk amul kenn ko xam ne noppaliku nga ñëpp ci waañ wi lañ nekkoon kon soxna yi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal ci sonn gi ngeen sonn ci xéewal yi nekk yi xam ne fàggul ngeen ni ko bu loolu weesoo maa ngi siyaare waa daara ji ci boppam waa daara mun na wiru suduur gi nga xam ne moom la tuddee sunu kuréel gi ci ndigalu sanga ñaan mun na wiru suduur Serigne Touba moo ko bind muy l'illumination des cœurs muy leer gi nga xamante ne mooy tàggat xolu jàmm bi defar ko tur rek moo ma neex bañ ne lii tudd mun na wiru suduur ndax lii Serigne Touba def sanga ñaan defal nañu sëriñ Tuubaa moo ko wax alqalbu ka maaliki fil ahdaay max laa yamil tamil max iqtidaayi nee na xol mooy buuru cër yi mboolem xol bi fi mu jublu cër yëpp cër ñuy jublu te fexe nga sanga ñaan suñu xol bi jublu yàlla moo tax suñu jëmm ji mënatu la def lu neexut yàlla moom. wa asrixil qalba bi laa tatniisi xataa yuraa bi rabbi za tatniisi raxasal say xol nag ci tilim tilim yi te xam nañ ne laa ilaha illallah mooy shifaa u qulub yaa ko def ci ñun kon bu ñu ko tuddee mun a wiru sundur ngoo gi nga xam ne Serigne Touba diggal na ci bu wér xam-xam bi ndax béyit bii ma wax li ci tegu mooy fa kullum an raa si wallahi ahad fi ay shay'in fa huwa mutadin jixat ku xool mbir ma mbir ma je gisoo yàlla nga murtat waaye fa kullu man raafil kulli la yaat jadalahu minhu afdalil boo demee ba di gis yàlla ci bépp mbir yàlla dana defar ay ngëneel yu kawe ci gis ki ngay gis yàlla ci bépp mbir loolu bu sànga ñaan defu ci lii borom daaru def ci moom dañ koy gis rek mu ñuy yéem waaye duñ xam la mu doon kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax di sant waa kuréel gi Cheikh Demba Diong sant nañ la gërëm na la bu wér gis nañ sa liggéey jëwriñ nga te gis nañ tawféex gi ngay def ci daara ji yàlla yàlla yokku la te barkeel la Cheikh màgget Sène Cheikh Mass Jabaay ca Italie lépp lu dem ci tànt bi moom moo ko jaayante ñu koy ñaanal yàlla may ko taw féex Cheikh Mamadou fay ca Fatick Cheikh Ablaye Faye ca Dox Saare ñoom ñëpp Cheikh Yeggul Faye ñoo ñii mooy ñi nga xamante ne ñoo ne ci daara ji te góorgóorlu ñoom ak seeni kuréel ba liggéey bi ak si fii di tamit sant soxna yi toogoon fii di jàng xasida yi di kuréel di soxna yoo xamante ne ñu ngi ci daara ji te sëñ Abdoulaye Mbacke mii moo leen di tàggat sëñ Abdoulaye Mbacke mii sëñ Baara Mbacke moo jur baayam moo xam ne sama wëllëre la aljuma ci jot day jóge Grand ñëw fii di tàggat waa daara ji ci xasida Serigne Touba te yàlla rek tax kon sëñ Abdoulaye. ñu ngi lay nuyu di la siyaar yàlla na yàlla fay ci liggéey bu rafet bii di siyaare bàyyi faale ak rijaalu leex yi nga xam ne wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ay gaynde lañ siyaar naa leen bu wér waaye di ñaanal suñu ñari waajur yi Cheikh Amar Diouf ak yaa roqi fay yàlla nañ fi yàgg loolu te ànd ko bu wér ndax nit ñaari bunt ngay am bunt bi nga jaar ba gane àdduna ak bunt bi ngay jaar ba àgg si borom boo ko warmaalee rek di nga am ngërëmal suñu borom kon yàlla nu yàlla tawféexal ba loo lii ñu mën koy jëfe ñu ngi siyaare ñëpp ñu teew ci bés bi góor yàlla yëpp maa ngi leen siyaare bu baax di leen ñaanal yàlla te di leen jaajëfal te di leen ñaanal ci dara jay Cheikh Moussa Cissé jàppe borom daara loolu leen bëgg yàlla defal leen te teew na ci base bi tey moo si Adama si mi yaakaar naa ne caaral amatul ku réerati Cheikh Moussa amul ku réerati baatu laa ilaha illallah waaye amul ku réerati gis yàlla loolu moom amatul caaroy géej moom te ginnaaw bañ ko xamee yàlla tàggat na xol yi ba nangu ak cofeel commencé naa am ndax lii am daawul am yaakaar naa bu ñuy continuer dina daj àdduna kon taw feex googu tam borom bi defal nañu ko kon maa ngi nuyu ñëpp di ziar suñuy kilifa duñ fi nekk ñuy wax dara cant rek gërëm rek te di sukk tamit ci seen kanam di leen dagaan ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen tawfiqal ñu yokkuñu doole yokkuñu xel ndax am nañu yéene waaye xel mi mën naa ñàkk a mat waaye ngeen yokkuñu siru koo xamante ne dinañ am pësteef koo xamante ne dinañ liggéey yëkkati liggéeyu Cheikh Moussa bi jaar ko ci keppaaru sanga ñaan ba àdduna yëpp gis ko loolu rek kon sanga ñaan ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak maa ngi nuyu ñëpp di siyaar yëpp di nuyu mbokk seex yi waa Kër Masaar ñëpp maa ngi leen di nuyu leen siyaar do allahumma salli ala sayyidina muhammadin